yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madad. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulilah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaa. mbokk yi fi teew ñu ngi leen nuyu di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bii ñu nekk di jumaay Tuuba. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi toog jataayu Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér moo njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp ba ñu àggale naal yi nga xamante ni naal nañ ko ngir liggéeyal yoon wi di leen nuyu di ci turu Serigne Afia Bousso al imam mii nga xam ne mooy njiitu daayir muxaddamatul xidma te toog ni ci jataay bi di nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp ak fu ñu mën a bàyyi ko Euh, xam naa waxtu wi sax dafa xat ndax dañoo guddee tàmbali moo tax ñu bëgg a tënk waxtaan wi rek ci ay minutes yu néew li des fi ak gee ngir ñu mën cee tënk liñ ñu war a waxtaane waxtaan wi nag weesu wut niñ ko baaxoo defee at mu jot ci liggéey bu mag bi nga xam ne moo nekk ci suñu loxo te mooy taxawaay yi nga xam ne moom lañuy def ci weeru koor gi te yaakaar naa mi ngi bëgg bari at yu bari ñu koy taxawee euh, di ñaan suñu boroom tabbal ñu ci ci bismillahi rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom defal ñu tawfiq ba ki ñu koy defal nangu ko euh, xam naa kàddu yu njëkk yi dañuy niñ ko baaxoo defee danañ jox sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar mu tënk ci lu gàtt liggéeyub daaw bi nga xam ne def nañ ko ci benn rapport xëy na détail yépp sax du fi xaj waaye dana ci tënk ba ñi nga xam ne euh, bokkoon nañ liggéey bi ñu xam liggéeyu daaw ba ni mu demee bala ñoo sóobu ci liggéeyu ren bi loolu mooy doon kàddu gu njëkk gi bu ñu noppee nag danañ jox bokk yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi te ñu teew ci jataay bi ñoom itam ku ci nekk yëkkati ci ay kàddu kàdduy soññee kàdduy soññee lay doon bu ko defee tënk nañ ci ñi ci war a jël kàddu ñëpp tënk nañ leen bu ko defee ñu man cee yëkkate ay kàddu kàdduy soññee jëme ko ci mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi suñu noppee nag doog a jox sëriñ Afiya mu tëj tëjal ñu jotaay bi kon mel na ne ñetti kàddu yooyu rek moom lañ bëgg liggéey bi doxe ni incha allah ndax li des ci waxtu yi dafa bariwul moo tax xëy na yenn détails yi du fi xaj kon mbooleem ñi nga xam ne ñoo seq daayira muxaddamatul xidma buñ ci tuddee Sëñ Afe rek tudd nañ ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi moo xam ay secrétaire lañ moo xam ay président commission lañ moo xam ay adjoint lañ ñoom ñëpp teew nañ ñi nga xamante ni ñoom itam ñoom lañ seq liggéey bi ci geneen fànn gi muy yaxantukat yi ay liggéeykat ak ci fànn yu nekk ndax léegi dootuñu wax sax naan ndajam commerçant yi wala opérateur waaye liggéeykat yëpp ndax ci biir ay commerçant ngi ci ay ouvrier ngi ci ay boulanger ngi ci ay mécanicien lu ne ngi ci kon mel na ne fu ab taalibe nekk te yëngatu ci wàllu yaxantu rek ak gum mën a doon wàllu liggéey rek ak gum mën a doon mi ngi ci biir liggéey bi ñoom itam euh, suñ ci tuddee ala Cheikh Alaaji Baara Diop ak sëriñ Moussa mi nga xam ne ñooy coordonné liggéey bi euh, tudd nañ ñëpp tudd nañ ci sëñ Cheikh Awa Balla Diakhaté mi nga xam ne moo fi teewal ndaw ñi tudd ci itam euh, sëñ Amdi Lo mi nga xam ne moo fi teewal ñi yëngutu ci wàllu boulangerie kon ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal kon duñ def lu dul jël kàddu gi rek jébbal sëñ Abdou Lahad mu tënk ci minute yu néew liggéey bi nga xam ne moom lañ seqoon daaw bala ñoo euh, tàbbi ci liggéey liggéeyu ren bi kon sëñ Abdou Lahad bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin euh, mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp fas yéene tënk lenn ci li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne dañ ko seq te baaxoo di ko def at mu ne lu toll ci euh, luy bëgg a mat ñaar fukki at wala boog fukki at ak juróom ndax defe naa 2005 la woon mille 2005 ba 2024 waaw ñaar fukki at yu manqué tuuti lay doon euh, lii mooy tënku liggéey bi nga xam ne moom lañu liggéey ci euh, weeru koor 2023 liggéey bi nga xam ne daa irat muqaddamatul xidma moo koy taxaw ci jumaa ji ànd kook bokki taalibe yépp dundal nañu weeru koor gi ci ay waxtaani diine ak tontu laaj ngir laabiire bokki jullit yépp ak bokki taalibe yépp ci seen diine ak seenu taalibe te ay boroomi xam-xam yu ñu ràññee seen xam-xam ak seenug taalibe ñoo ko doon saytu ginnaaw takk gu gune ci weeru koor gépp waxtaan yooyu daanañu ko jàllale ci mboolem tasukaay xabaar yi ci réew mi naka noonu it daanañu waajal ay ndogu ngir bokki jullit yi nga xam ne ñoo fi daan doge ci kaw loolu bis bu ne lu toll ci ñeenti junni nit daanañu fi doge gën gaa néew am na ci ay bis yoo xam ne ëpp na ko noo ngi ñaan ci barkeb Cheikhul Khadim sunu borom nangul liggéey boobu te defal ñu fan gudd ak wér yokk wërsëg yi te yaatal ko e, te àggale seeni sunu yéene yépp ci barke Cheikhul Khadim dugal ñu ci waxam ju tedd jooju mu wax ne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 secrétariat général ñoom ñoo doon coordonné commission yi ci saytu seen liggéey lu ci jara yokk ñu yokk ko lu ci jara jubanti ñu jubanti ko seenub liggéey ñu ngi koy def ci ndigalul président bi jiite mbooloo mi ñooñu seen bit si mi ngi toll ci neuf cent soixante dix mille ndax day am yoo xam ne ñoom ñoo koy mën a def commission sociale bi nga xam ne moom lañu ñu dénk lépp lu aju ci dimbalante ak jokkale daayira bi ak yeneen mbooloo ñooñu seen liggéey yi nii la tëdde woon lu jiitu koor gi dem nañu ci cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général des mourides ngir yeesalaat ndigal jëm ci liggéey bi ren defaat nañ ko niki ki démb dem nañu ci sëriñ bi bi mu ubbee rek ñoom la njëkk a dajeel ba joxewaat na ndigal li ci biir weeru koor gi itam amal nañu ci ay ndimbal yu am solo yu jëm ci waa jumaa ji ci xeet yépp nag muy imaam yi noddukat yi daaray kaamil balikat yi ak waa lenn ci waa daayira bi ak yeneen jumaa yu nekk ci dëkk bi sax ak yeneen bokki taalibe yoo xam ne dañ koo yittewoo daa nañ amal nag benn consultation gratuite waaye daaw amaluñ ko ndax xam ngeen ne dañoo am benn infirmerie fii ci biir jumaa ji boo xam ne day faj ajjuma ju ne ak mbooleem événement yi nga xam ne day am ajjuma ju ne district bi dañ fi yebal ab médecin yebal fi ay infirmier ñuy faj ba takkusaan euh, foofu nag dafa laaj garab yu baree bari li ñu daan def ci consultation bi dañ ko jënde ay garab def ko ci yi boobu waaw xam naa ku bu noppee ku bu bu ko jot gi mayee ñu visité ko ngeen gis ko ñooñu seen budget tolloon na ci treize millions huit cent mille commission culture culture mooy commission bi nga xam ne moo yore wàllu xam-xam ci daayira bi ak jàngale ak formation yi nga xam ne moom lañuy def ci biir daayira bi commission boobu ab liggéeyam ci biir koor gi nii la tëddee amal nañu lu toll ci fanweeri waxtaan mooy waxtaan yi nga xam ne moom la ñuy def par takkusaan ñoom ñoo koy saytu ñooy wut ñi koy def ñooy wut ñi koy modéré ñooy taxawu di ko saytu itam ba lépp di jaar yoon fanweeri waxtaan yooyu am na ci ñeent yoo xam ne ay laaj ak tontu la euh, tont nañ ci lu toll ci ñaar téeméeri laaj ak ñaar fukk am na fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ay thèmes lañ yoo xam ne thèmes yi actualité lañ am na ci juróom-ñett yoo xam ne ay bunt la ci xam-xam yoo xam ne dañ koo jàngale soo ko boolee muy fanweeri waxtaan defar nañu it ay kayit yu xam ne waxtu dog yi ak yi jàpp yi doon ko tasaare ngir nit ñi mën koo jariñoo loolu mooloon nañu ci lu toll ci juróomi junni kayit ren jiit defaraat nañ ko amal nañu itam ab jataay bu jëm ci tàggat ay noddukat ci mbooleem noddukat yi ko yittewoo ci biir dëkk bi saytu leen ba xool ña ko man ñu jox leen ay lijaasa seenub lim ci ñi nga xam ne saytu nañ leen ba ñu man man gu rafet bañ jox leen ay liyaasa toll na ci ñaar fukk ak juróom-benn loolu ci biir weeru koor gi la woon daaw. defaral nañ leen it ab téere boo xam ne dañ ko bind ci wolof fi leer nañ jàngal leen noddu ñaata baat la nan lañ koy defee fan lañ war a taxawee ak yëpp li xaam kazalik ba lépp àgg ñooñ seen bisi daaw mi ngi toll ci 1 million 623 mille am na commission communication mooy commission bi yor lépp lu jëm ci wàllu jok yëgle ak jokkoo ci biir daayira bi mooy say tamit site internet bi nga xam ne moo nekk ci biir jumaa ji ab liggéeyam ci koor gi nii la tëdde woon mboolem waxtaan yi ak naafile yi ak liggéey yu doon am ci biir koor gi euh, yëpp daanañ ko jàllale ci site bi nga xam ne mooy situ jumaa ji naka noonu mboolem rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi doon nañu leen jox son yi waxtaan yi ngir ñu di ko jàllale ak lenn ci ay télé lu mel ne Lamp Fall TV Al Mouridiya ak lenn ci ay site internet yu takku am na itam ay télé yu fi ñëw def si ay reportage ci liggéeyu koor gi bokk na ca RTS bokk na ca Touba TV bokk na ca RDV bokk na ca TFM defar nañu it ay documentaire bu tënk liggéeyu koor gi defaraat nañu it lépp lu aju ci sonorisation jumaa ji ndax naafile yi ak xam lay waxtu dog yi ak xam lay waxtu yi xëdd yi day laaj sonorisation bi baax seen bit mi ngi tolloon ci 1 million 399 mille 500 secrétariat administratif mooy kuréel gi war lépp lu aju ci wàllu bind ak saytu mbooleem luy kayit ci daayira bi membre buy bokk tamit ñoom ci ñoom lay jaar ñu bind ko ab liggéeyam ci koor gi nii la tëddee defar nañu defaral nañu commission yépp mbooleem la soxla woon ci wàllu kayit lu jëm ci liggéey bi muy carnet yi ñi enregistré muy leneen lu mën a doon rek luñ ñu soxla lu jëm ci kayit mbooleem ñi fi indi ay barkeelu it wala addiya bindal nañ leen lettre tontu yu wane ne seenub liggéey agsi na bu ñu noppee it ñooy boole mbooleem liggéey bu aju ci liggéey bi tënk ko ci benn rapport muy rapport bii ñu tiim tey jii ñoom ñoo koy tënkaat bu kenn ku nekk bindee ba noppi ba indiwaat ko ñoom ñoo koy dajale ba ne ba mu nekkaat benn rapport seen budget mi ngi tolloon ci deux cent cinquante cinq mille huit cent vingt cinq. commission organisation nag mooy te mooy bi ci gën a yaatu mooy commission bi yor wàllu organisation yi ci daayira bi moom ab liggéeyam ci koor gi nii lay tëddee mooy waajal xéewal yi jëm ci ndogu yi dalal nit ñi ak toppatoo barab bi ñuy doge organiser waxtaan yi ak naafile yi saytu liggéey bi mu ngi daan tàmbali 6 heures ci suba. ci lañuy xëy si raxas mbooleem lu fiy bagage boo xam ne moom lañ jëfandikoo woon ci waxtu dog bi seenub liggéey mi ngi daan jeex 23 heures ci guddi bu ñu naafilaa ba noppi ba ñëpp dellu ci kër yi membre yi mu doon liggéeyloo itam toll nañ ci juróomi téeméeri nit ak juróom fukk ndax xam nga ne liggéey bi daaw dafa yokk genn wet la daan jël ba tourné muy yokk bii ba tourné nii daaw nag dafa continuer ba egg buntu kër Sëñ Saaliwu yokk jumaa ji yëpp dañ ko mujjoon di lal moo tax faw ñi koy toppatoo it day yokk lii nag ay góor lañ ak jigéen jigéen ñi ñoo yore wàllu lépp luy raxas bi ak lenn ci yeneen liggéey yi nga xam ne liggéeyu jigéen la te nekk ci biir liggéey bi góor ñi itam yore taxawaay yi ak yeneen liggéey yi nga xam ne xaw naa diis ci jigéen ñi xaaj nañu ko commission boobu ci juróom juróomi eh, xaaj yu mag muy bii dalal gan ñi bii waajal xéewal yi bii dajale bagaas yi bii waajal barab bi ñuy doge ak bi yar wàllu sécurité bi ñooñu moo nekkoon ko noonu lañu séddalee woon commission organisation bi daaw nag comme ni ma ko waxee léegi yaatal nañu liggéey bi mu yokk ba ñetti wet yépp léegi dañ koy lal féppay am lépp lu yokk bi rek dañ koy lal féppay am comme ñoom seen euh, budget mi ngi tolloon ci trent cinq million huit cent vingt cinq mille huit cent cinquante commission finance mooy commission bi nga xam ne moom mooy dajale li fiy ñëw moo koy génnewaat itam ci kaw ay bon yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bon yi nga xam ne mooy demandé ci mooy jóge ci commission yi ñuy demandé seeni budget moom budget mi ngi tolloon ci vingt cinq mille francs bariwul noonu la deme bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo fi indi addee daaw ci weeru koor gi seenub lim mi ngi toll ci trois cent trente ci ay jëmm walla ay mbooloo ñetti téeméer fanweer ak juróom-ñaar li ñu fi indi itam ci bu dee ci xaalis toll na ci million millions 340 mille 895 63 millions 340 mille 895 nii la tëddee li nga xam ne moo jaare ci loxoy sëriñ Moussa mbay ak sëriñ Bara Diop Serigne Moussa Mbaye li jaar ci loxoom nekk na juróom-ñaar fukki nit ak juróom indi nañ ci lu toll ci dix-huit millions cent quarante-deux mille cinq cent vingt-cinq dix-huit millions cent quarante-deux mille cinq cent vingt-cinq jàmbaar la loolu xam naa yokk na bu baax daaw xanaa mu gën a góorgóorlu reen ba gën a yokk rek Serigne baara Diop it am na cinquante-huit yu jaar ci moom yoo xam ne toll na ci trois millions deux cent trente mille trois cent cinquante soo ko boolee li li jaar ci ñoom ñaar lépp day nekk téeméeri nit ak fanweer ak ñett seenub lim li ñu indi toll na ci million 21 millions 374 mille cent 875 21 millions 374 mille 875 li jóge bitim réew jaare ci Serigne Assane Diop toll na ci 29 diggante ay daayira ak ay nit benn benn indi nañ fi lu tollu ci sept millions trente mille trois cent soixante million millions trente mille trois cent soixante xanaa leeral rek ne foofu ñoom Espagne rek indi woon nañ lu toll ci quatre million huit cent mille yoo xam ne day ñoom dafa am lu leen sëñ bi santoon te mooy daf leen a waxoon ne ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi ci jumaa ji moo tax ñoom seen lañuy indi andi bu dañ ci génne loo xam ne day jëm ci liggéey bi génne ci loo xam ne itam social lañu koy tudde jox ko ñi nga xam ne ñooy waa jumaa ji dañ koy séddale itam séddale bu yaatu boo xam ne dañ ci ànd ak waa Muxaddamatul ma ci njiitul sëriñ Afee mii sàkk ndaw ñoom sëriñ bi sàkk ndaw ñu ànd wër ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox ñëpp di kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji ñi nekk ci biir ak ñi nekk ci biti ñëpp boo boolee li nga xam ne moo jóge bitim réew lépp day nekk fondation Amérique ñoom it andi woon nañ 4 millions 821 mille 735 4 millions 825 mille cinq soo ko boolee day nekk 11 millions 852 mille 95 francs loolu mooy li jóge bitim réew li jaare ci daayira bi moom it ci ñaari bunt yi la am muy sëriñ Abdul Ahad Bousso Afia cent quatre-vingt-cinq personnes ñoo jaare ci moom mi ngi nekk vingt-neuf million deux cent soixante-quatre mille neuf cent vingt-cinq vingt-neuf millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent cinq Cheikh Abdou Bousso fukki nit ak juróom-ñaar ñoo jaare ci moom mi ngi nekk huit cent quarante-neuf mille su ko defee li jaare ci daayira bi lépp deux cent deux personnes la toll ci trente million cent treize mille neuf cent vingt-cinq trente million cent treize mille neuf cent vingt-cinq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 ngir valeur bi mën a génn képp ku ko fi indi dara itam turam mi ngi fii ak nem ko fi indee am na it ñoo xam ne dañ doon def ay addiya di ko fi indi dañ daan togg wala ñuy lakk ay beñe wala ñuy defar dara kafe di ko fi indi ñooñu it ab lim lañ ñoom ñëpp seen tur niñ ko daan defee mi ngi ci biir rapport bi am na ñu fi daan indi itam addiyi mburu mburu mi moom it li nga xam ne indi nañ ko fi ci àddiya toll na ci vingt un mille huit cent vingt trois ci mburu vingt et mille huit cent vingt ci ay bagati mburu xam naa lii moom sëñ Cheikh Gawane Ka dana ci bég lool euh, li ñu fi joxe ci mburu toll na ci vingt un mille huit cent vingt trois mille huit cent vingt toll ci trois millions quatre cent quatre-vingt-onze cent 680 li ñu jënd toll na ci 3000 30 100 30 100 baguettes toll ci million 4 millions 816 mille million 4 cent 816 mille am nañ fi tam benn euh, pour bu ndaw bu nekk fii boo xam ne moom it doon na lakk daaw bis bu ne 600 euh, mburu mburu mburu mu gàtt bi mooy camp yi 600. mu mu fekk si lim boobu li nga xam ne moo jóge ci bitti daal mi ngi nekk euh, cinq cinq cinquante et mille neuf cent vingt trois li nga xam ne moom la ñu moo nekkoon yi jóge ci pour yi pour bi defar mi ngi nekk huit cent soixante dix huit mille sept cent astaghfirullah huit mille sept cent ci ay baget soo ko boolee lépp li ñu consommé lépp day nekk soixante mille six cent vingt trois soixante mille six cent vingt trois ci ay ci ay mburu euh, sëñ Cheikh Gawane ka mi ngi rey rek kon loolu mooy mburu mburu maa ngoog sëñ Cheikh li nga xam ne moom la ñu dépensé lépp mi ngi toll ci 70 millions 123 mille cent cinquante cinq waaw ci xaalis nii la tëddee li fi ñëw ci xaalis mi ngi nekk million 63 cent 340 mille 895 li fi ñëw ci bagage toll ci million 16 millions 224 mille 680 soo ko boolee mu nekk 79 millions 565 mille 575 li ñu financé ci xaalis mi ngi nekk 53 millions 899 mille li fi ñëw ci bagage te ñu euh, euh, dépensé ko lépp moom itam mi ngi toll ci 16 millions 224 mille 680 soo ko boolee muy 70 millions 123 mille 850 bu ko defee li ñëw lépp ci xaalis ak li fi des xaalis bi li fi ñëwoon mi ngi nekkoon 79 millions 565 mille 575 liñ ci dépensé nekkoon euh, soixante dix mille cent vingt trois mille cent vingt trois euh, soixante cent vingt mille huit cent cinquante cinq mu waroon des kon neuf million quatre cent quarante mille sept cent vingt loolu mooy li nga xam ne moom lañu ñu dépensé ci kooru daaw ñu ñëw nag ci li nga xam ne ndax ndaje mu mel nii dafa yombul te ginnaaw dañoo seq liggéey bi itam li fiy ñëw ñu di ko dépenser day laaj ñuy xam lenn lu nekk lañ ca def fukki weer ak ñaar yi nga xam ne moo am ci at mi at weer wu ne lañ ca dépensé ci yeneen dépense mois de janvier ñu ngi ci dépassé woon un million cent seize mille sept cent février sept cent cinquante huit mille neuf cent mars neuf cent cinquante mille deux cent quatre-vingts avril 871 mille 300 mai 1 million 437 mille 550 juin 2 millions 121 mille deux 200 juillet 950 euh, cinq mille 600 août 1 million 10 mille 300 septembre cent quarante cinq mille cinquante octobre 597 mille cent novembre 933 mille 900 décembre 1 million 54 mille 10 millions 54 mille euh, de 1 million 1 million 1 million 1 million 54 boo ko boolee mu nekk 12 euh, millions 54 mille ci ci ci ci ci ci ci at mi bu ko defee boo xoolee weer yi lépp juróom fukki weer ak ñaari ci dépense yi nga xam ne dépense yu yu yu yu sax la yu sax bokkul ak yi nga xam ne day gindi di di dem lu mel ne matériels yi ñu jënd lu mel ne yi ñuy réparé yu mel ne ñuy defar nekk na douze millions quatre cent quarante cinq mille six cent quatre vingt xew-xew yi màggal Touba quinze millions cent soixante neuf mille six cent vingt deux gàmmu trois millions soixante dix mille sept cent deux mille deux cent weeru koor yi soixante dix millions cent vingt trois mille huit cent cinquante cinq li ñu fay ci ay salaire yoo xam ne bokkul ak yi nga xam ne moom lañu ñu maire bi di fayal yi nga xam ne ñoo koy fay sunu kees weer wu dee mi ngi nekk neuf cent dix mille douze mois yi nekk dix millions neuf vingt mille francs total finance at mi yëpp boo ko tënkee ci yi nga xam ne bokkul ak euh, añi ajuma yi bokkul ak yi nga xam ne moom la ñu maire bi di fayal nga xam ne ñoo dañ koo fay ci sunu kees rek la bokkul it ak gan ñi nga xam ne dañ fiy ñëw léeg-léeg. ñu di leen teral ak di leen toppatoo yooyu bokku ci waaye yii mooy dépense yi nga xam ne yu rek yu sax la moom mi ngi toll ci cent douze million neuf cent soixante et mille trois cent cinquante sept kon ci tënk lii mooy li nga xam ne moom moo dox ci at mii nga xam ne ci lañu génn bañ fi dajee ak biñ fi dajawaat xëy na diggante mois de janvier ak mois de mars bii ñu nekk ñaari weer yi jàll rek moo nekkul ci biir rapport bi nga xam ne moom lañ tiim ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp day day su xanaa yi nga xam ne rek war nañ ko leeral mooy lu mel ne suukar daaw jëfandikoo nañ ci 160 sac 160 sac bis bu yàlla sàkk itam danañ euh, defar lu toll ci ñaari junniy litre ci ndox mu am suukar diggante kafe bisaab meew euh, ataaya ak yooyu yëpp ak jinjeer yooyu yëpp li ñuy suukar dana toll ci bu dee yenn bis yu féex yi ñeenti saako ak lu topp tuuti bu fekkente ne bisi ajjuma lay doon wala bis yu mag yu mel ne laylatu xadar wala màggal gu am ci biir koor gi wala yu mel noonu boobu day dem ba ay juróom benn saako ci bis bi kon lool moo tax mbir mi toll fii mu toll mbir mi nag ginnaaw dañ koo tàmbali woon mu nekkoon lu ndaw ñu daan ko ànd muy màgg day laaj foo màgg gi toll rek ñun ñëpp ñu xamandoo ko ndax fu mu agsi tey jii seen taxawaay ak seen yitte ak seen liggéey moo tax mu agsi fi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawféex ñu teewaat fi ni ngeen déwén liggéey bi ñu jublu itam suñu borom defal ñu tawféex ba ñu àggale ko ci jàmm te mu raw mboolem mu ci mas a liggéey barke Cheikhul Khadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. rahmaan rahim barke sëñ Tuubaa barke sëñ Gaawaan yéen bokki jullit yi yéen bokki taalibe yi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant ci ndigalal sëñ Muntaxaa ci ndigalal sëñ Mountakha mi nga xam ne moo fi toogal sëñ Touba tey teg ca sëñ Afi Bousso mi nga xam ne mooy sunu ilimaan te moom mbooloo moo ko fekk da koy dundal ndax mbooloo mi kat kilifa gu mel ni moom da cee taaru da cee baax da koy dundal ndax ku ko gis xam ne lu jëm ci yàlla ak yonent bi ak sëñ Touba rekk moo ko tax a jóg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nga di ko beral cantuk boppam ginnaaw bu ma sante sëñ taxaa ba noppi ah, léegi leneen li ci tegu itam mboolem ku fi ne maa ngi lay sant di la gërëm ndax ñëpp jàmbaar lañu ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi waaye nag eh, bu caaxaan wee dëgg sës Moussa mbay moom dinaa ko beral cantuk boppam waaw wax dëgg yàlla ndax bari na ku fi teew te moo lay woo di la informer te loolu moom ñëpp xam nañ ko kon moom mënuma ko ñàkk bañ a euh, beral cantuk boppam ndax lu ko waral mooy euh, boole na amul wenn lépp lu jëm ci sëñ Touba lu ñuy doxal ci dëkk bii te Moussa mbay gisoo ko amul eh, te moo fay jëkk te moo fay mujj te itam da koy boole ak di ci def la kem kartanam xëy na mënu ci sax waaye nag dina ci def kem kartanam dégg nga te na ku fi ñëw te moo la ko fàttali moo la ko yëgal ba ci man mii di wax ak yéen bu du woon ak moom du du fi ñëw ndax fàtte woon naa ko kon nag moom faaw ma beral ko cantuk boppam bu bu bu ñu noppee nag eh, gone yi nekk ci marché bi di samay moroomi doom bi may door a ëgsi te gisuma fi benn gone ba naroon naa leen a mat waaye ndekete ñëw nañu eh, ginnaaw bi la ñu door a ñëw ah bi may door ñëw ay màggat rek laa fekk waaw gone yi nag ndekete ñu ngi wan ci wane bu bu bu ñu ñëwul woon dinaa leen mat du ma leen ko nëbb kon nag man mat nañoo sant mat nañoo gërëm ndax gone kat bu dee taxaw taxawaayu mag taxawaayu kilifa mat naa sant mat naa gërëm mat naa ñaanal ndaxte kat nun sunu wàll wéy na kon nag ñoom bu bu ñu eh, yore drapeau bi naa bi gis seetlu naa gis naa ñu li ci ëpp solo dikk nañu kon wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm rafet naa njort am naa yaakaar ci ni naru ñoo mujj puso ba mu réer kon alhamdulilah rabbil alamin ndax nag gone bu nekkee ci lu baax bay boo nga di ko ñaanal fan wu gudd ak wér te xam ne eh, bay boo nga rafet njor ci moom auzu billahi min asheytaan irajim lawla wala quwwata illa billahil azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalib yi nanu maase wax alhamdulilahi rabbil alamin li tax mu wax loolu mooy naga ni daaw noo ngi fi nekkoon ñàkkul am nañu fi wàññeekoo waaye ñooñu gënuñu leen dara yàlla ci sam borom rek ci coobam mbaaxam moo ñu dimbali fekke waat jataay bii te jataayu taw feex la kon war nañoo wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu ñu waxee loolu suñu xel day dem ci mel ni Moustapha Gadiaga ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon sambrom defal nañu taw feex ba ñu fekk waat jataay bii jar na sant sambrom tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñ muntaxaa fan wu gudd ànd ak ku wér ba naal yim naal yëpp sambrom tabaraka wa yeggaleel ko fu mu na mu ko bëggee ak na mu ko te ànd ko bokki jullit yi ak bokki taalibe yi te lépp yal na ko sambrom defar ci barke suñ Fàllilu Mbàkke te lépp nekk ci suñu kanam nan ko yàlla defal defal ko bépp jullit ak bépp taalibe ah soññewaat rek la ñuy def nag ndax euh, dañ ni bërigo diwlin ci mbartal boo bësee mu dem boo bësul mu dem defe naa ni ñiy sos lii bañ koy sos fii mu yëg si sax defoon nañu du fi yëg si te wër na sëñ Tuubaa yi li ci kanamay dàq li ci gannaaw waaw sëñ sëñ bi moom noonu rek la mel moom waaw ñi fi ñi fi def nii bilan bi ngeen di def nii wax dëgg yàlla baax na lool de ndax euh, leeral daal baax na waaye ñi fi joxe seen àddiyee ñi ne bitim réew ak ñun ñu ne ci dëkk bi yi ñëpp li ñu joxe bis biñ ko dajalee fi joxe ko keroog lañ ko fàtte wallahi lazim kenn diingatul kenn contrôle kenn bëggul xam fu mu dugg parce que loxo yi ñu ko teg wóor nañu ni sell na waaw yàlla moom bu la naree liggéeyloo ñu baax la lay jiitalal teg leen seen kanam waaw ndax euh, fondation bu bu dëgër rek miir bi lu ñëw tegatu ci moom day dëgër te ñun wóolu nañ leen doylu nañ leen waaw kon bu ngeen at waxal naa ko fi daaw bu ngeen di defal bilan rek tënk leen rek tënk leen rek ndax waxtu wi dafay xat te kenn dingatul kenn contrôle dañu ñaan rek liggéey bi gën a jëm kanam yal nañ ko sam defal ah réew mi itam li tax ma ni nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin dañoo nekkan tuuti ci ay jafe-jafe ku yor njaboot ku nekk ci réew mi amoon nga tuuti ay njàqare waaye sam borom tabaraka wa taala mi nga xam ne dara tëwu ko mel na ni jàmm ji mi nga gën a dellu si mi ngi gën a sax yàlla na gën a jëm kanam te itam réewum Sénégal buñ ne daraa ngi daraa ngi yëngutu rek balaa kenn dal xel yëpp Touba lay si waaw ba suñ Muntaxa waxee def ay ñaanam yónnee ay kilifaam defe naa li mu jur ñun ñëpp teg nañ suñu bët ndax nii mbir mi doxee nii kat foogu woon ni ni lay gaawe ak ni lay doxee loolu du neen ak neen doxu ko waaw kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di ñaan taxawaayam gën a yàgg yal na yàgg ci kanamu taalibe lu baree baree baree baree baree bare li ñuy wax daal mooy lu waay def ren bu déwénee yal na nga man lu ko ëpp lu ci waay def ren ci lii ndax fi ñu koy dugal kat ku xool di nga xam ne am na maanaa fi koy dugal de ñiy jóge ay ay umul xoraak ay mbëfëreel ak ñoo xam ñoo seulement dañuy dog ba pare def ci seen i bool yóbbu loolu ku ci ku ci yàlla boole ci boobu liggéey war ngaa wax alhamdulilahi rabbil alamina war ngaa sant yàlla bu baax a baax eh, suñu mbokki commerçant yi nag ngeen xam ni daanaka kenn mënu leen ci liggéey bi ñu ngi leen di mas masawu ci tolof tolof yi fi jaar dal ci seen kaw muy diggante lakk gi fi amoon ak événement yi fi amoon te ñu ñaan mu bañante dugg biir Touba li ngeen ci yàqule sama borom tabaaraka wa taala ci kartanu sëriñ bi yan na leen jox lu ëpp li ngeen ci yàqule man na ko sañ na ko ak bépp julit bu yàqule ci biirum Sénégal ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ñi fi yàqule ak ñi ci ñàkk seeni bakkan ci événement yi jëm ñëpp yàlla na leen sa borom tabarak wóotaleel lu gën li ñu ñàkk allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbi rabbil izzati ama yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal Seex Muhammadu Muntaxa mu yàgg fi loolu ci wér Ah, di jiital ci nuyoo bi nag ci mbooloo mi teew fii sëriñ Afia Bousso mi jiite liggéey bi di nuyu tamit suñ magi commerçant yi fi nekk di ci jiital mu Moudou Diop ak sëriñ Moussa Mbaye buñ jëlee nuyoo bi teg ci seen loxo rek mel na ni teg nañ ko ci loxo ñi jiite liggéey bi ñëpp. xam naa dañuy jéem a tënk rek kàddu yi maa ngi jël kàddu nag ci turu association des commerçants et industriels di Sénégal section bi nekk Touba. te président Fallou Xuma mais jiite ko may wax ci seen tur lu jëm ci wàllu ndogu yi nga xam ni moo jëm ci jumaay Tuubaa ju mag ji te ñoom ñu yàgg koo taxawee lool ànd kook suñu mag ñi nga xam ni ñun biñ leen dabee ak léegi yàggul lool euh, kàddu yi nag kàddu yi sant la ak ngërëm rek waaye ak soññee euh, ñi ngi sant daayira Muxaddamatul Xidma bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ni ñoo ngi koy def ci fànn yëpp nag xëy na lii day benn boo xam ni moo waral bisub tay bi rek waaye kuréel yi ngeen yore ci jumaa ji ak li ko war bari na ah, damay wax ni waxtu wu nekk ñetti kuréel yi Muxaddamatul ma ak Isbu Tarxiya ak Baay yi dañoo féete yoonu murit foo xam ni ñëpp fa waroon a féete te mënuñu ko ñu féete leen fa ndax liggéey bi ngeen di def dafa mënul ñàkk ci organisation ak ci programme ak ci yeneen ak yeneen yu bari yu aju ci dëkk bi ba ci armeel yi te ñëpp la war lu war ñëpp nag bu ko amee ñu ko féetewoo ñooña dañ leen di ameel cant ak ngërëm di ñaan saa borom nangu leen liggéey yi te dencal leen ku fi yàq yëgut ñun ak yéen ñu ko ànd ñëpp ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul damay wax ni Hizbut Tarqiyyah tey jii li tax ñu leen di wax loolu ñoom it tey jii bu buñu noon Serigne taxaa ngi jëm Kaolack wala cees wala Dakar danañ ko def ni tuubaa ba bu fa eggee day mel ni fii fukki at juróom yi sëñ bi génnu fi te loolu dafa mënta ñàkk ku jógee feneen jëm si Touba boo ñëwee kër sëriñ bi dinañ ko taaral genn xeetu taaru goo xam ni loo déggoon sëñ bi bëgg ko boo ñëwee da koy gën a bëggaat ànd koog yéen geneen gi ci des mooy suñu mbokki bay Faal yi ñu leen di sant leen gërëm ci taxawaay bi ñu am ci dëkk bi kuréel yooyu dafa nekk kuréel yoo xam ni képp ku nekk ci dëkk bi war nga caa jàpp sa kemtalaay kattan man nag wet gi may waxee mooy suñu mbokki ndaw yi nga xam ni ñoom laa sañ a waxal ndax mag ñi moom dañ leen di sant di leen gërëm comme ni ko Baye Jóob waxee fu yëf yi yegg yéen a ko fa yóbbu waaye dinañ beral cant ak ngërëm nag Serigne Moussa mbay wax dëgg yàlla ci liggéey bu rafet bi nga xam ni da koo yor bañ di ay ndaw ba nëgëni ñu koy dégg turam ba tey ji yàlla dimbali ñu ñu fekk ko ci kaw ànd ak moom liggéey bi. kon ñi nga xam ni ñoo bokk ci ACIS wala bokkuñu ci tey ndaw nekk Touba di liggéey nañ xam ni liggéey bi ci seeni loxo la jëm si te nit mënta ñàkk yëngu yàllanteen na ngay yëngu ci lu am solo sëñ Moussa lim boole dafa bari ba ca liggéeyu université bi ñu seq taxawaayam daf ci rafet. te def ci dox guddi ak bëccëg ak lii ñu séq kon sëñ musaa ñi ngi lay ñaanal yal na yàlla sàmm te aar la te bàyyi la fi yaa ngi liggéeyal Serigne Touba waaye Serigne Touba am na fay ak ñi ngi ko àndal ñëpp soññee bi tamit waxoon naa ko daaw wax dëgg yàlla dafa am baat yoo xam ni dama koy wax toujours dañ daan wax commerçant yi defuñu fi dara defuñu fi dara man sax loolu dama leen daan wax naan lu tax duñu wax menuisier yi defuñu fi dara lu tax duñu wax mécanicien yi defuñu fi dara wala commerçant yi dañoo nekk benn entité boo xam dañoo jóge fa rek ñëw ni cëpp déedéet ñi ci ëpp seeni maam dañoo àndoon ak Serigne Touba seeni bàyyi ànd njaboot njabootu Serigne Touba koo ci gis marché am na Serigne am na fu mu lu ñi ma ci xam de ku mel ni Baye Diop mii fa mbokk Darou Salaam kenn mënu ko fa. Galas Xumma mii fa mbokk Madina Touré kenn mënu ko fa man mii am na fu ma bokk la ma man maa ngi koy def keneen noonu kon commerçant yi taalibey Serigne Touba lañ ni ko ñëpp nekkee. dañoo bokk nag lu ñu mënta séddoo ca marché Ocass wala ci dëkk bi moo tax ñu amaat geneen kuréel gii ak yu bari di ci dox kon yaakaar naa ni desuñu ginnaaw ci dara. alhamdulilah nag bi ñuy tudd naan defuñu fi dara defuñu fi dara dafa mel ni bari na yoo xam ne tey ci université bi ak yeneen yeneen mi ngi weddi loolu kon ndaw ñi maa ngi leen di soññ di leen ñaax ngeen gën a jàpp ci liggéey bi fu ngeen mën a ne ndax euh, wax naa ko fii daaw dama daan wax naan ku ci gis pàkk boo bëgg xam nga la ca man ku ci gis oto boo bëgg xam nga la ko ca man wax dëgg yàlla teraangay Serigne Touba yi ñun am nañ ci bu baax a baax Serigne Touba nag ñëpp la teral dafa tolloo nag am dereti Serigne Touba moom pàggu téefu sun borom la ku waaye nag teraanga jii nii gis mañ cee faj soxla wax dëgg yàlla ñii ji commerçant ak ñeneen am nañ ci bu baax a baax te xool sa bopp danga ko gis. du ma dugg ci détails yi waaye ku nekk daal boo amee soxla lan koy faje ak la nga ca man mu di million xam nga ko kon nag loolu nañ ci liggéeyal Serigne Touba manees na ko ci wax manees na ko ci joxe manees na ko ci dox parce que yëpp yëmut ah, beneen bi ci desit ah, képp koo xam ni yaa ngi fi di liggéey. liggéey bi ni nga xam ne waxtu nekk mën naa ñëw ci say loxo ndax ñii nga xam ne ñoo nu mag moom li leen war def nañ ko ba def loo xam ne sax ëpp na li Baye Diop wax dëgg la lim naroon a màtt ndaw ñi ba léegi sax mën nga leen a màtt ndax ni ñu waroon a dikki dëgg dëgg dëgg des na ndax eh, am na ci loo xam ne bu ñu doon ñëw fii di ko teewe di dégg kàddu yi leeral yi yaakaar naa yi dinañ gën a góorgóorlu bu baax a baax ci li ñuy def kon dañuy gàttal kàddu yi foofu di soññ ñi ñu liggéey bi ndax ñun tàmbali leen barki démb fii ma toog rek ci istat yi ñuy def am na koo xam ne Espagne la ma envoyé am koo xam ne Amérique la ma envoyé parce que forme de communication yi ak plateforme yi ci lañ koy def boo ko ci defee nag day waral liggéey bi dana àgg sax foo ko wut li nekk ci ay liggéey kat ci dëkk bi yaakaar naa bu ko nekk defoon li nga mën a ko si néew li ñuy indi fii dana ko ëpp donte ñoo ngi dox ñoo ngi góorgóorlu kon sañ Ablaye ñu ngi leen di sant di leen gërëm di fas yéene ànd ak yéen liggéey bi nu ngeen ko yëkkatee rek. Euh, di sant bu baax nag Serigne Gallas Khouma mi jiitee ACIS ndax bari na bànqaas yoo xam ne dénk na ko ay nit ba pare wëlbati ko yoralaat ko boppam kon ñu ngi ko ci sant di ko gërëm waaye di ko xamal ni nit mënta toog faaw yëngu am te ACIS bi mu ñëwee léegi am na lu bëree bëri loo xam ne apporté na ko commerçant yi loo xam ne sax bokkut ak syndicat bi ñu doon di défendre suñuy intérêt waaye loo xam ne yombalal na suñu digg ak sëriñ bi ak suñu diggante ak ñi sëriñ bi dénk dëkk bi parce que li ñuy wax interlocuteur dafa mënta ñàkk léegi nag boo soxlaa mën nga jaar ci Gallas Khouma directement li nga bëgg nga am ko ci commerçant yi mu daal di yomb lool ci ñëpp te loolu liggéey boobu mi ngi ciy ànd ak sëñ Moussa Mbaye ak sañ daam Diakhaté ñu koy coordonné kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu euh, salaamaaleykum wa rahmatulah euh, ñu ngi nuyu bokk yi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi sëñ bu Bousso yi nga xam ne mooy kilifa jataay bi di eh, ñaanal mun tax mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba li nga xam ne moom la naal ci liggéey Sëñ Tuubaa bi yëpp suñu borom dogal mu yeggale ko ko bëggee. di eh, tàmbale ci suñuy kàddu rek eh, ni ko Baalin Guèye may waxee woon muy kàddu cant ndax lii moom cant féetewu ko kaw kàddu yi nag comme jataay bi dafa yàgg te kilifa ne fi xam naa mënta gudd waaye lañ koy tàmbale rek mooy li nga xam ne moom la waxoon mooy ñun danoo doon ay taalibe laata ñu fi yore ay entreprise ñu am pas-pasu dundal sunu taalibe bi ci biir entreprise yooyu ñu yor loolu nag yaakaar naa ne kon lu war a yomb la moo tax daanaka jafewut ci ñun tax na it euh, laata ñu ñuy woo fukki fan ak juróom ci gannaaw ñun fekkoon nañu waaj ba noppi nga xam ne fukki fan ak juróom ci gannaaw bu ñu ñëwoon booba la woon dara fekk du tardé ci wàllu jumtukaay yi koy indi ak taxawu baak lépp loo xam ne nii ma nga ca aju euh, kon bi ñu wooyee bi ma bàyyi baara wooyee daanaka dee naa ko ñun de waajoon nañ sax ba jekk bu yàgg moom ndax loo xam ne yaa koy def daanaka soxlawul sax ngay xaar ñu la ci soñ saa bu waxtu jubee rek mën ngaa daal di dogal sa waajtaay te it comme niñ ko waxee nga xam ne liggéeyal Sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am eh, am nañ yéene fees feeñal ko ci sunu doxin ren waaw loolu nag ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññ mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu secteur boobu jërë ngeen jëf aleykum wa wa barakaatu mbooleem maa ngi leen di nuyu di mu yàgg fi te moom ak rakkam ak taalibe yi ñëpp bi jaay Seexul Xadim ah man de sama wax moom li ma war na wax lépp daanaka ñi ma jiitu wax nañ ko xanaa dellu soñee rek ah, xam ni yëf yi mel na ni ñoom ci fukki at ak juróom-ñeent bi ñu jotee ndigal léegi léegi ndax yaakaar naa 2005 lañ jotoon ndigal li boobaak léegi mel na ni at mu ne yëf yi day gën a yokk luy gën a yokk nag. ñi ci nekk itam war nañ gën a góorgóorlu gën a yokk seen loxo bu baax a baax ndax kat mam daaw fii daje woon na feg ñu jóge woon itali andi woon fii 48 saako suukar te ñoom kat lañ waxan daaw dañoo mel ni ñoom liñ bëgg buñ ko amee yëf yi bu ñu yeexee daañ ku ko nangu ci ñun te mel na ni ren andi nañ 61 saako suukar tey seen wax ak seen yéene ni ma ko déggee ah buñ buñ bu ñeexee da dañ jël yëf yi ci ci ñun de ñun nag ginnaaw ñoo daa nekk ci kanam toujours mel ne mel ne nag fii ne ji jiituwuñ de kon nag nañ gën a góorgóorluwaat bu baax a baax daal waaw loolu daal ñu ngi sant nag ñëpp wax dëgg yàlla ki jàmbaar lañ lool nag waaye nag nañ nañ gën a góorgóorluwaat bu baax daal waaw maa ngi sant bu baax nag. di sant sëñ Fallou Xuma ñoom ñi ak sañ sëñ a Abala Jaxate ndax ñoom it ñu neex àndal lañ tey muy ci fii ci geneen wet guñ jëm gu nekk daanaka ñoom dañuy teg pression sax waxtu bu ne waaw ñu nag moo wax wax dëgg yàlla ah ñu ngi leen sant bu baax di di santit ah, ci mag ñi xam ne ñoo ñoo ko jiite muy Baye Diop ak El Hadj Kab Fall ñoom ak ñeneen ñi mel ne ñoom ñëpp rek. ku ku lim da nga da nga jum ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay bu baax a baax yéen waa Moukhaddamatoul Khidma nag moom euh, see seenu cant seenu cant moom neexul a wax sax fu yem ndax koo nga xam ni la nga la nga war na def ka ka sa digganteeg loola di la ko defal di ko bakk te di te di ko kañ rek moo la la war te mel na ni fi fi ne jumaa ji moom ku taalibi di murit ku am nga yéene yi li ngeen li ngeen li ngeen fi nekk de ko def ci war na ñëpp ginnaaw dox ngeen suñu diggante ak loolee nag ñun di leen bàq te di leen kañ te di leen ñaan ñaanal rek moom moom moom lañ lañ warloo ak yéen baax na jërë ngeen jëf asalaamaaleykum.